baara tudde sëñ Moustahin moo tax ànd naag doomi sëñ Moustahinam sëñ baara mu ngi fii maamam sëñ Basiiru nettil na lu bare bare seen diggante bokk na ci nee na xam nga ko yaa ma gën a xam mi ngi ci téeréem bi maamam la sëñ Touba natt la woon jumaay njaareem maamam la sëñ Touba taalifoon ci moom téere bi ñu wax di yaafatul fa bi sëñ bi nekkee ci géej gi sëñ Bassirou nee na maamam rek mooy ki dem fekki woon ko xam naa fekki ko fekki baati ñi ca ñëpp dañ doon ànd ak moom ci zaahir waaye maamam moo ko fekki woon sëñ bi nag fonkoon ko lool tax na ba bi mu fi nekk sëñ Baara sax mos na faa dem Cheikh Moustapha yàgg na 1930 la fi jóge tax na ba sëñ Baara demoon fa Euh, kóllëre googu taxoon it ba mu tudde ko Cheikh sëñ Moustahine mii nee nañ ci ndigalu sëñ Touba la ko defee woon moom mii nag mooy nekk ci xilaafa gi baayam gaañu woon na daaw booba nga yónnee woon fa ay ndaw mu neexoon ci ñoom loolu rafet woon ko moo taxoon mu ne faw rek lu mu xat-xat dana ñëw ziar la yéen doon dog yow ba ngoon incha allah ngir kóllëre googu gën a wéy xanaa nga nuyoo xale yu salli nas قال أنه يشكركم غاية الشكر قال أنه يفرح جدا هذا اليوم جدا قال أنه هذا اللقاء لقاء سعيد جدا من أسعد أيامه اليوم ان شاء الله جزاكم الله خير على انه جزاكم الله عنا خيرا الشيخ مستعين قال انه يعرف جيدا ما كان بين الشيخ القديم والشيخ المستعين هو يعرفه جيدا ان شاء الله ان شاء الله قال انه ان شاء الله سيبقى يحفظ ذلك العهد ان شاء الله وتلك العلاقات ان شاء الله تعالى قال انه يعرفه جيدا قال انه يحب ان يبقى معك ان شاء الله وتحفظ يعني ان شاء الله الله ذلك العهد وتلك المودة بإذن الله تعالى أنت وهو قال أنه يعرف بأن ذلك من أهم ما ينبغي أن نقوم به أنتم الاثنين قال أنه يريد أي شيء أنت فيه أن تخبره به مناسبة إن شاء الله تكون خير دائما لكن أي شيء ترى فيك قال أنه أخبره وهو سيكون بجنبك يكون خير من يساعدك أيضا incha allah ñu mu àndal nuyu la rek ñu mu ànd Cheikh Ahmad Salim wuldu Cheikh Musta'in ismuka xalanu la yurid an yansa ismak ismuka Cheikh Ahmad Salim wuldu Cheikh Musta'in billah alkum li lii maamam Cheikh Musta'in la tudd sëñ Tuubaa ci yokk Cheikh Musta'in billah ñi ñi mbokk yi la àndal mbokki taalibe yi ci taalibeem la mi ngi liggéey na Nations Unies soxna si waaw Fatou Sarr waaw maison soli taalibeem la nee na nga ñaanal ko ci kurus gi rek <laughs> ana sëñ Xaadim Mustayn ñoom bu ngeen leen wax ñu jege si ñoom ñoo ñuy ànd. waaw ñoo ànd ba tey ñoo ànd sëñ Xaadim Mustayn waaw moom. sëñ Xaadim Mustayn Mustayn. jël kurus gi toogal toogal ci kaw xaaral Idrissa il faut may ko mu ci kaw allah gis soxna si mu àndal mu nekk ji soxna Fatou Sarr Nations Unies lay liggéeyee waaw Nations Unies lay liggéeyee ab taalibeem la bismillah ma tegal ko ne waaw tegal ko ak lii ak yi yomo jaan ay ay lu mel ko da ñaan lo waaw ak yi ay la ay waaw ay ay waaw ko ci ab ab. xaar xaar ci ab taalibeem la sëñ Baara <laughs> loolu waral ñoom ñu ñëw fii ñoo koy gunge fii tey ndax sëñ Baara lañ fi nekkal Cheikh Ahmad <laughs> Lamine jërëjëf jërëjëf Nenek bis bu màgg tay tey bis bu màgg a màgg Nenek azim بالنسبة لي. nee bis bu màgg la ci moom bis bu màgg a màgg la Nenek moom. nee na mënut a wax leen lu dalee sant rek amul lenn lu mu war a sant rek la mën a def tey nee na. nee na mi ngi lay sant waaye nag mi ngi lay ñaanal yàlla guddal sa gën guddal sa fan. ak wér bu baax a baax. ndax nee na jullit yëpp soxla nañ la. nee na waa Touba rek soxla wuñ la jullit yee la soxla nee na. ñoo la soxla. shakirin wa adada ma adadhum al-inaaya nee na waa Mauritanie it fonk waan nañ la fonk bu bees ndax gis nañ cër bi nga leen jox ci ci bi nga nekkee ci liggéey bi shakirin wa tanaami dina xanam nga di shakirin nee na seeni taalibe bi ñoom it waa waaloog ñooñu ñoom it ñoom it sant nañ la cant gu bees nee na bëgg nañ nga ñaanal leen Mm-hmm. nee na moom gone la waaye day toog a ci xilaafa nee nag comme soxla na ñaan nga ñaanal ko bu baax baax moo toog ci xilaafa ak maam ñaanal ko spécial allah طول العمر لنا ولكم ونجبر عند امامه نانا سيغن ak cheikh mustahil ko joxon lu ñu barkello ab tappi ko joxon bu sañu neena nga jox ko lu joge ci yow mu di ko barkello loolu la touba joxon maam daw ko waaw tas lu jóge ci yow barkeelu ko lu jóge ci yow lu mu barkeeloo nee na ay maamam barke lañ daan wut Sëñ Tuubaa barke moom it bi mu ñëw it nee na looloo ko tax a jóg moom tam barke ko tax a jóg suñu suñu barke nee na njabootam gépp it njabootu Cheikh Moustapha gépp mu ngi leen di sàkkul ñaan si yow الشيخ المستعين كان الشيخ المستعين كان يجي للشيخ القديم ويزور له العيال وزوار له الشيخ المستعين دار نيو شن توبا بو ني نكو نغا نيانال سما نجابوت ييب لولا تخ مو تاي مومتام ني يعني انا مود ياك حاك ني انا مومتام تاي ان شاء الله بو باخ تاي نكو بو مسالك الفينان missionnaire Saada mm. na bi ñu immigré Masalik moo tax li muy xat-xat moom ñoom ñëwoon nañ ca yàgg ginnaaw bi ñu ko na la muy xat-xat mel na moom moo duggoon ci biir ci biir ci biir jàkka ja dugg na ci biir jàkka ja fa la jullee nee na nee na teewe na booba xat na metti na waaye nee na sëñ jar na ko jërëjëf jërëjëf mm. nee dafa xat nee waxtu wi xadd lool ci yow xaq naas nee nit ñi am nañ àq ci yow waaw moo tax nga ñaan rek day ko sëñ Touba ba mu قال أنه أنت أتيت دارك بين أهلك وبين إخوانك قال أنا يعرف ينبغي أن تعرف ذلك جيدا لا بين أهلك طب ما لا أنت بين أهلك وبين عيالك قال أن المكان لا يضيق بالنسبة لك واسع بالنسبة لك ان شاء الله اذا يدعو الله لنا آه. نيني نيني نعم، نيني نيني Thank you.

kul di Cheikh Moustahine di xalifab Cheikh Moustahine eh, di nit ku baax jóge ba Mauritanie Nawalk Daaru Salaam eh, ñëwoon seet si sëñ Touba ñëwoon Touba loolu nag di loo xamante ni moom ku ne xam na ne jaadu na war naa mën a nekk ndax waajuram maamam Cheikh Moustahine moo ko sëñ Touba kenn nit la ñu woon nekkuñu woon ñaari nit Euh, daa mag ku dem ci téere yi wax naa ko sëñ Muntaxa léegi rek mu ne ma ma ci wax xam naa ko maanaam téere yi bi sëñ Basiru bind rek boo ci delloo doy na sëkk wax na ne sëñ sëñ Mustaxin fi ko sëñ Touba tegoon kawe na new na ku mu fa tegoon nett na ba tey ci téereem bi moom sëñ Madlamin Jóob Dagana ne sëñ Touba sëñ Mustaxin taxoon mu taalif téereem bi ñax Diyaafatul Quddus ay ndénkaan yu am solo ci nekk nett li na it ne daana wax ne Cheikh Mustaxin musta bëgg ci sëñ leneen lenn moo tax benn yoon ñëw na fi sëñ Touba jox ko ab tàpp ne ko yóbbaale ko di ko barkeeloo danga nga fa gisit ñu ne sëñ Moustahine moom la sëñ Touba di la woon jumaay njaareem ji danga nga ci gis yu bëree bëri daana ñëw ci sëñ bi lu bëree bëri sëñ bi fonkoon ko lool wax na it lu yéemu ne bi sëñ Touba di nekk ci géej gi wàllu yëpp dañoo toogoon fii maanaam daan nañ ko jàppale di ko ñaanal ak yooyu Cheikh Moustahine nag yéemu ci woon dafa demoon déplacé wu dem seeti ko ak yu bëree bëri xew seen diggante kon Cheikh Moustahine daanaka rek mënees na ne mooy Touba. kóllëre googu nag li ko gën a firndeel njabootu sëñ Touba gépp noonu la jaxasoo woon ak ñoom waaye nag sëñ Baara moom sëñ Touba Cheikh Mamadou Lamine waxi nopp eh, daanaa dégg nañ ba tàyyi ñu ne sëñ Baara ñoom fañ dëkk nga ne jéggi na frontière tuuti sëñ Baara ci tukki yooyu mu doon def mos na faa dem. doy na sëkk ci wëllëre googu it sëñ Baara kenn ci njabootam muy sëñ Moustahine Cheikh Moustahine la ko tuddee moo tax tey bi nga xamante ni gan gu tedd gii mi ngi fi ñëw Cheikh Mouhamadoul Mountakha ne ci bunt bi la war a jaare moo tax njabootuk sëñ Baara ñoo ko gàttandu ñooy ñi nga xam ne ñoo ko andi ci moom muy sëñ Cheikh Baara Abdoul Karim al imam di doomu sëñ Abdoul Karim moom sëñ Baara di imaam yi guy mbind di borom xam-xam di nit ku baax muy sëñ Xaadim mi nga xam ne it moo gën a firndeel lii ñuy dox di doomi sëñ Mustaqim sëñ Baara nga xam ne ñoo ko gatandu ànd ko ñun ñi ñëpp andi ko ci sëñ bi sëñ bi ci ndigalul sëñ bi lañ ko defee sëñ bi ci lool lool ndax kat yàlla dafa wax ne waatul buyu tamit abwaabiha lool sëñ bi bëgg na lool gis ngeen mu def loo xam ne mii nuñ koo def lal bi mu toog dana ko bul toog fee ñëwul toog sans wet yow ñoo war a bokk biko gan gi nan ko ah ka dafa xat bayil ma dem rek mu yow fi du xat ci yow bu xate ci kenen lay xat waye du xat ci yow ndax ndax sa keur nga nek fatali li seigne Touba defoon mooy jël sijaada comme seigne Touba musna jox Cheikh Moustapha ko mu yónnee yakam ko xaar sijaada jox ko ko ne yu yóbbaale ko yow tam kon limi mu bari na kon Cheikh ahmed Salim mi mo ñew and ak ganam yu tedd ni seigne Marfal mi seigne mohammed mi andal ak Cheikh Moustapha ak mbokk talib mi andal ak soxna Fatou sar mi sa señ ba señ bañang señ Mañang ak soxna Fat sar madame job ñim andal ñi ñep kon ngir ñëw tey ñëw fer firndeel ci lolu ak set señ bi kon dina ko jox rek mu wax kaddu gatt suma ma noppee jox kenn ci njabot ak señ bara inshallah ndax ñom tam ñom ah, mu yefi bismillah neena mo ngi di nuyu bu baax. alaykum wa wa barakatuh neena mo ngi di nuyu fi ci Touba waa Kër Cheikh waaye ci Touba. الشيخ مستعين كان يجد نجارين ويجد طبعا الشيخ أحمد بامبا نينا الشيخ مستعين دان جوغي غانار دي نيو سيرت الشيخ الشيخ أحمد بامبا تنجارين نحن على ذلك بريق ذلك نحن نك دفن لول جارت يوان بيغا خمنتني فلسين مام جارون وعد الشيخ محمد نسان كان يجد الشيخ صالح نينا ويجولم دي الشيخ محمد سالم dan na sét si fii sin saliw gàmmu gën a file daan gàmmoo ci sin saliw di ma ma di tabarkallah cheikh al muntaqa ak min nadaak mune nak Cheikh seigne murtada mom xamna lolou teyena lolou seigne muntaka mbake mune xamna lolou teyena lolou na loolu téye Cheikh mohammed Lamine bara ah ñu ñu ne ñu ngi ci diggante nag njabootu Cheikh mohammed Lamine bara Sëñ Xaadim. محمد الأمين بارة عامر الشيخ القديم نسمي حدنا ولاده على الشيخ المستعين. الشيخ محمد الأمين بارة دعنا سيت الشيخ المستعين تتدنا قدام. باي سن خادم باي سن خادم مي هذا احفاد اولاد احفاد نرى الله ذاك امن المندر قبل ما مثلا عن هذا هذا هذا الخيام الثنتين الحمد لله لا شيء واحد لان نياري كري دنيا كر بين كر له عندنا قاشين قد نقولهم هو الشكر لهم نانا داك امول لين لوم تي واخ لودول غريم لين سانت لين شكر الوالدين اللي جمعونا معاهم نانا واي دي سانت ايتام سين واي جور ييغا خامتيني ньо وارال مبير مي gawuma incha allah daak nee na incha allah daañu taxaw ci loolu di gën ko dekkal jazakallah xeeran asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu waaleykum salaam ah ni ko si mut la waxee noonu rek la ndax lii lu baax la ndax ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee bokk na ci mbaax ni ci jokk wala waajuram kon jazakallah ana xayr xayran kon ñu ngi sant baax baax bi ñu fekk nañ fi Cheikh Modou Mountakha moom tamit mu dalal ko ah sant ci tamit wax dëgg yàlla wala yi joo xam ci diggante waajur mu ñëw di ko feddali mm. kon sëñ bi mi koy sant baax a baax di sant ñi mu ànd